moom dañu fi dañu fi ñëwoon di seet si euh, Cheikh Alassane Sène mi président wu mouvement daj dëpp euh, ñëw bi ñu fi ñëw nag ñëw bu bu am importance bo torop na pour ñun parce que dafa am lu ñu fi dajale dañ fi ñëwoon pour wax waxu élection yi pour ñaan ko mu jàppale ñu si li ñuy si suñu mbébét mooy élection yi ñëw jigéen ñi am ci au moins téeméer bu nekk ñu am si fukk ndaxte fi mu nekk téeméer bu nekk ñaar dong lañ fi am ñu gis ni loolu jaaduwul ci réew mu mel ne Sénégal réew moo xam depuis 1945 jigéen ñaa ngi ci conseil municipaux yi war na tey ñu weesu li ñu am mu ñun bi ñu ñëwee euh, ñun convaincre ñu dañu fekk koo xam déjà si gëm-gëm bi daf ñu si jiitu parce que li mu wax ay partem ay jigéen ñoo ci bëri jiitu nañu si li wan ni jiitu nañ si moom ci boppam sax daf ñu tegtal loo xam ne ñun xalaatuñu ko woon ci yoon bi ñu nar a jëm muy rek euh, un approfondissement ci nga xam ne bataille bi ñuy def mais li gën a am solo tey mooy dañ fi ñëwoon pour wax waxu élection mu wax ñu dëgg la nañu wax waxu politique waaye nañ ci boole yàlla mu jox ñu benn tableau boo xam ni li koy firndeel tab tableau bi daf ñuy jëmale si yonent tedd sallallahu alayhi wa ñun ñu gisee ko ni li mu ñu jox muy tey bisu altine ñu jóge ci laylatul xadar ñu gis ni loolu dafa am lu mu tekki si zahir ak si baatin ah mun nañu wax si zahir bi mais ci baatin bi ñu boole ko bo ñu bàyyi ko borom baatin yi waaye am nañ yëg-yëg bu mat bu yëg-yëg bu dëggu fii tey mooy ñi ma àndal ñi ñëpp ndax bi mu ko génnee daf ñu bett xalaatuñu ko woon waaye liñ ci mën a wax moo di daf ñuy yabaat wan nu nañ tegu ci dëgg nañ tegu ci dëgg euh, parce que bu ko la delloo ci diine delloo la ci alxuraan delloo ci yonent bi sallallahu alayhi lim la dellu mooy li ma wax la vérité parce que seul Dieu euh, kon ñun noonu lañ koo gisee daf yàpp daf ñu sas euh, ci suñu ànd bi tamit niñ fi àndee nañ ko teg ci dëgg loolu yëpp je pense que jigéen ñi fi nekk tey euh, dugalaaleel nañ ko li ñu wax internaliser nañ ko ah mën nañ nag euh, yam ci loolu wax rek suñu mbëgte wax rek nii li mu def dégg nañ ko dégg nañ li mu ñu wax euh, mais loolu mu ñu yàpp du ñun kese la ko yàpp je crois que wu ñu taxawee di ko wax ci média yi ñëpp képp kuy def politique fii la ko yàpp képp ku fi nekk di yëngatu ci Sénégal la ko yàpp lépp looy def rek na si jiital sa borom mm-hmm. parce que loolu mooy table bi mu ñu jox tey kon nag ñu ko siy gërëm di ko ci sant euh, te xam ni ñun tey amuñu rek allié parce que ñi fi ñu jaar yëpp d'accord nañu pour nekk suñu allié mais moom dafa def lu raw loolu dafa commencé di ñu xàllal yoon di ñu joxoñ fan la ñu war a jëm kon mi ngi ñuy xalaatal mi ngi ñuy jox mi ngi ñuy tegtal fan lañ lañ war def ak fu ñu war def suñu teg suñu tànk euh, moo tax tey bisu tey bi bisu yëw la rek ak bisu bégte ak yaakaar yaakaar bi ñu fi indi euh, ba ñu ñëw ci moom ñu ubbee koy ñaan tëje ko ay ñaan euh, yaakaar nañ ni liñ fi def yàlla dañ si teg loxoom. xanaa sant yàlla rek ci ñëw bi ñu ñëw seet si ñu euh, ñëw bi ñu seet si nag waxtaan nañu wax naa leen ne leen déglu nañu leen déglu nañu leen di sant nag bu baax ci professeur faatu Sow saar ak ñi mu àndal ñu nekk suñu ay yaay ñu namoon leen lool yàlla def ñu gisee ñoom tey ji ñu nekk suñu ay sœur ay wóllëre ñu nekk suñu ay seex mu nekk jotaay bu am solo boo xamante ni ki jiitee suñu ay ñoñu jigéen muy madame Sakho Fatou Kiné moom mi ngi bi ci biir lii nga xamante ne euh, Fatou Sow Sarr tëgg na ko ñu am ci yaakaar nag ndax réew su amee fu mu jëm am fu mu toll am fa mu newoon ba léegi ñu kon ne di di di di di téye loolu te gisaguñu njëriñ buñu ñu ci suñu biir yaram jot na ñu jël lenge yi jébbal ko ñi yor kër yi te yor ko yor boo xamante ne li cay xew gis nañu ko mooy le leadership de des femmes ci kër yi la tàmbalee gis nañu la grande royale ca Saldé gis nañu taxawaayam gisoon nañu Aline Sitoé Diatta gis nañu jëmbat Mbodj ca Waalo gisoon nañu seen taxawaay taxawaay yu mel noonu nag la kii di Fatou saw saar professeur bu mag bi indi ànd ak ay ñoñam am na lu mu wax dégg naa ko am na leneen loo xamante ne er, ree la ca boole dégg naa wax ja loolu laa wax nag dañuy ëmb loolu yëpp ànd ak moom ci xeex bi nga xam ne njëriñu réew mi rek la nar a doon incha allah taala